Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer tabaski des benn weer képp fii ci marché Ocass bu Touba commerçant yëngu ci njaayum tissu di ko waajal ak xeeti tissu yu bëri ci wute ngir seen i client waaw jamono ji ñu toll moom fi mu toll ne mbase yi wax dëgg moom la ñu bëri jël muy jas ne original bi ak Swiss Gold bi nga xamante ni moom lañ xewal mu mel na ne tamit client yi moom comme ni maanaam dañoo jël ñaari façon di ko ëppal lu ñu laaj muy weer Sénégal ak bulebik dafa mel na ne moom client yi surtout jigéen ñi jël nañ ko trop moo nekk au top waaw weer Sénégal ak bulebik li ñu ko na trop au oh, top moom boo bëggee dégg li xew KSS Gould bi BK lañ koy wax waaw marché Ocass moom bii moo fi xew instant bii nii bii moom temps yi moo koy kii. waaw jamono ji nag moom basin brodé nit ñi bëgg nañ ko en plus brodé euh, val brode nit ñi bëgg nañ ko trop basin shoes gold bi tamit moom moom moo yëngal marché bi fi mu ne nii moom. ins bi yi nekk en top bari na brocart yi mi ngi fi soit cristal yi mi fi. til euh, microphone yi mi ngi fi til cocaïne yaa ngi fi Getzner Fesneguer Noblesse bëri na façon tissu yi am bëri na macha allah. Mbacha Getzner xam na Touba moom Getzner lañ gën a bëgg jàpp na ne suñu Getzner suñu tissu yi am gën a xam waaye am na yeneen brodé asuwa cristal yu war a ñëw yoo xamante ne macha allah rafet nañ tabaski bi macha allah moom. dañuy xool li nga xam bi ak yëre yi nga xam moom la sañu bëgg ci dëkk bi quoi indi ko ci marché bi. waaw lu ci mel ne xeetu ay Getzner original ay Valbrode lu ci mel ni ay super sans fil fil pour góor ñi lu ci mel ni ay mbase góll yi tamit am na fi am nañ ciy rafet. ci li jamono way commencé ñu yokkuñu njëgu li nga xam si ne mooy tissu yi maanaam prix bi ñu doon jaay ñu ci dara. du duñ yokku du ñaan fi prix bi normal bi rek parce que loolu dafa suñu client dañ ñoo safoo ba lépp loo xamante dañ koy kii. dañuy ñëw si ñun duñu wees fenn parce que ñu lañ leen defal moom démb ak barki de moom la ñu defal tey ñun duñ changé di yokk ak wàññi benn prix rek lay doon boutique moom duñu yokk ñun moom yokkuñu wàññiwuñu wax dëgg yàlla ñun moom prix normal rek la ñuy jaay parce que dañoo bëgg képp ku ñëw rek képp ku ñëw jënd rek boo demee rek ñëwaat ñu loolu lañ soxla soxla soxla ñu ci leneen si si bala ñëw moom boo dikkee di nga am li nga tollal dëgg yàlla ndax prix yëpp fi am biile soxna moom gisagul ay client am waaye mi ngi rafet njottu gis leen fii ak njeexantel weer bi. na commencé kon jox naa bu weer bi deewee incha allah nañ commencé ñëw nànk-nànk rek ñu ngi naam tabaski gi egseegul teewul client yi ñu ñëw rawatina ñi nekk ci dëkk yi wër Touba. oui client ñu ngi ñëw ni instant bi ñu leen di rafet yoomul fenn oui ñu ngi gis bopp baax dëgg ñu ngi sant yàlla baax. ñi ngi ñëw bii moom wax dëgg moom ñëpp gis nañ ci seen bopp parce que jamono neexul te bii yomb na macha allah te gis nga ni ni ko fekkee nii xam nga liñ naan tungale du teew ñuy notaar yi ëkk. nii moom jigéen ñi lañ gën a jox bopp góor ñi tamit am nañ si wàll mais jigéen ñi moom instant bi ñoo ñëw bu baax a baax. waaw waaw client yi moom wax dëgg yàlla soxna si ñi ngi ñëw ndànk-ndànk waaw client yi moom wax dëgg yàlla ñi ngi ñëw ndànk-ndànk wax dëgg yàlla ngi ñëw ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw ñi ngi yàlla ñi ngi ñëw tabaski ak xotti ak ñaw lu nekk ñaari mbir yu yàgg ba tax na soxna yi ak tuut tànk yi jàppee xotti yére bu bees farata ci événement tabaski gilee Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. ñëppay dañ ak réer